Ansar yi gaaw leen gaaw ngeen bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre abonné di am en temps réel tous mu baax mi daa fa jaajo ne rahmaani mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ndokkeel di leen jaajëfal bu baax ci teewaay yi nga xam ne moom ngeen teew tamu doon teewaayu ndigal wuy si woote xalifab sëriñ may amar di sëriñ mama amar muy bis boo xam ne sëriñ bi daf koo woote ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha moom sëriñ Bachir di xalif général kullu murid mu yeesalaat ndigal li nga xam naka jëkk dañ ko baxo def muy su bis bi dellusee muy fukki fan ak ñaar ci wéru tam xarit ñu amal bis bi dolli ci ay ñaan sunu mam ju Wa ja way waajuram bu bax wa waye sunu serigne bu bax ba di alhaji serigne may amar lolo waral wote bi tay mbokk yi nag bàyyi ko fu ne ci diwaani réew mi teg seen tànk ci pàkk bu tedd bi di Touba ci këram gu barkeel gi ngir ànd ak sëriñ bi sëriñ Mama Amar bis bu am solo bii sëriñ Mama Amar ànd ko ak mboolem njabootuk sëriñ May Amar gépp mboolem ay rakam jëwrinu kër gi di sëriñ Cheikh Amar nekk nii ci wetam mu uuf mbollem sen rak yeb ñu top ci ginnaaw sen mag ju baax yi di Mama Amar kon serigne Cheikh ñu ngi lay ziar di la ndokkel ci bis bi ya mbollem say rak yeb yi nga xamne ne and and bi ngeen and ta top ci ginnaaw sen mag ju baax di Mama Amar ngir liggéeyu kër serigne May Amar ñoo ngi lay ñaanal sunu boroom dolli sa kàttan dolli sa man man yokk saw fan ba ni ngeen àndee ak sëriñ Mamma sunu boroom def ngeen gën koo man te gën koo jàppale ci liggéeyu sëriñ May Amar bi taalibe yëpp ñu ngi lay gërëm taalibe yëpp ñu ngi lay sant ci taxawaay bi nga xam ne moom ngay taxawu sëriñ Mamma waaye itam mbokk yi xam ngeen ne bisub sëriñ May Amar fu nu ko defee bala ñoo yëkkati kàddu danañu fàttaliku bu baax suñu jambar ji nga xamne mom moko soson andon ko ak yu baax yi di imam serigne mam Gumba Amar ñun ñëpp duñu ko faté kenn ku nekk leer na mëna ci sa xol yaa ak ñaan gu yes pek jëmele ko si jëmmam ju tedd jojja yalla suñu borom dolli ay leer ci kawam dolli yermandem te ndam yi nga xam ne moom la amoon ci kër gi amoon ko ci woote bis bi sunu borom xëppaat may yooy ci njaboot gi ba ñu koy sàkku ci jamono ji ñu am ci ba am ci lu kawe sunu njort yàlla ko suñu boroom def mu doon ay ngërëmam yu yaatu fa nga xam ne fa la nekk ak waajuram ba sëriñ may amar ak maamam yu baax ya Cheikh Ibrahima Dior amar ak mboolem ñoom fa nekkal mbokk yi bis bii sëriñ maama amar dafa am lu am solo loo xam ne nee na moo ko ci ëppaloon solo muy bu wootee bisub sëriñ May Amar ñu maase ñun ñëpp ci téere bu tedd bi di alquranul karim ba moo tax bi weer wu teroo rek mu yëkkati woon kàddoom ne fépp foo xam ne daaray alquran ma nga fa ci biir réew mi ak bitim réew lépp loo mën ci jàng ara alquran na nga ko def te addiyal ko sëriñ May Amar waaye mu ne woon itam fépp foo xam ne xasaa xasaayit ma nga fa na nga durus xasida yi sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul te addiyal ko sëriñ May Amar noonu lañ ko defee benn fan ci weeru xaram ba bis bi tey di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru xaram ñu jàng fi lim bu takku ci alxuraanul karim addiyal ko sëriñ May Amar loolu sëriñ ma dafa waxoon ne bokk na ci li ko gën a ñor ci bis bi nga xam ne mi ngi koy wooteel waajuram mu tedd ba di sëriñ May Amar kàddu gi ñu war a njëkk a joxe mooy kaddu sëriñ Bachiru Amar Ndiarndé na sëriñ May Amar moom mi nga xam ne moom la sëriñ bi jox kaddu mu santal ko. mboolem kilifa yi ak daaira yi nga xam ne ñoom ñoo maase teew ci bis bi moom la sëriñ bi jox ndigal ngir mu yëkkati kàddu googu santal ko mbokk yooyu bu ca noppee nag incha allah danañ jël kàddu gi autorités yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew danañu ko danañu danañu leen sant ci turu sëriñ bi kon sëriñ Bachiru Amar Njaarnde ibnu sëriñ May Amar moom la ñuy jox kàddu gi bu ko defee mu wëyal ndigalul sëriñ bi ci santal ko daayira yi ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo teew tey ci bisub alxaaji sëriñ May Amar bi sëriñ bi kon bismillah asalaamu aleykum wa rahmatullahi yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaare itam bu baax ci turu sering Mama Amar Khalifah sering May Amar ak mbollem ñu top ci mom di ay rakam te jawriñ je di serigne Cheikh Amar bokki ñi ñu ngi santaat yàlla bu baax binu yalla maye nu teewat fi ngir fàttaliku jëmm ji nga xam ni mooy alxaaji sëriñ may mu mel ne bala noo def lenn ñoo ngi ñaan sun boroom defal yërmande sëriñ maam gumba amar mi nga xam ne moo fi njëkk a sëriñ may te taxawaloon liggéey bi ci kanam njaboot gi ànd kook ñoom liggéey ko liggéey bu rafet ba mu agsi ci loxoy sëñ ma yàlla na ko yàlla dolli yërmande akum njéggal dolli ay leeram te taas nu ci barkeem barkeb sëriñ May Amar barkeb darmaan yépp mbokk sëriñ bi bi nga xam ne moo tax ñu daje muy sëriñ May képp ko fi am nañu yéene tuddu sa tour ba ñëpp dégg ko ku fi rek am nañu yéene tuddu sa tour ba ñëpp dégg ko ba nga xam ne sax ku ñu tuddul rek na jàpp ne mooy ki nu gënal ci sunu xol ñu ngi sant sunu borom te di ko ñaan képp koo xam ne teew na fi yàlla na yàlla faji aajoom tey tey tey ñoddil ko mboolem njariñ yi te fegal ko mboolem lor yi sëriñ bi ci boppam wax ne ñi fi teew de di ay kilifa rekk la bëgg a jukki sant leen waaye bu ko defee ak yenn daayira yi dinañu yóbbaale mboolem ñi fi nekk ndax ku ne xam na ne ñi fi ñëw ci suba léegi kenn munta jaarandoo ci seeni tur walla boog fi ngay fanaan moo tax mu wax ne kon kum tuddul itam na jàpp rek nekkoo kooka mooy gënal moo ka ko gënal ci xolam mbokk yi ñi nga xam ne teew nañ fi kon sëriñ bi sant na ñëpp gërëm na ñëpp danaa ci doole tuuti rek ñu xam ne yéen ñi fi teew teewaay bi lu mu yàgg yàgg yàgg njariñ képp a fi jóge ndax askanu Darmanko sëriñ bi daa am lu mu wax ak ñoom ginnaaw bi nga xam ne mag ñi nga xam ne ñoo ko toppoon muy sëriñ Ndongo Joor sëriñ Paate Joor ak sëriñ Ibra Joor ak mag ñi ko toppoon sëriñ bi dafa wax ne fajtahidu góorgóorlu leen lu tax mu ne leen li ànd na ni wajattu naasa fil fudul dama fekk nit ñi ci ay caaxaan walakin wa uxaawilhum xata adaxalahum fil xaq ma nekk ci jëlee leen ci caaxaan yooyu ngir yóbbu leen ci dëgg waaye nag walakinani wajadtu abaahum fi lxaq wa kuntu maahum fi lxaq yéen nag damaa ñëw fekk seen bàyyi ci dëgg ma ñëw ànd ak ñoom ci dëgg kon nag góorgóorlu leen jërëjëf sëriñ Bachirou Amar ñi ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko jaajëfal ci noonu yi nga xam ne noonu la présenté kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew waaye itam daayira yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci liggéey bi bu ko defee kon bala ñuy jox kàddu gi sëriñ Omar Amar ibn sëriñ Bachiru Amar Ndiarndé sëriñ bi dafa wax ñu santal ko autorité administrative yi nga xam ne ñoom ñëpp maase woon nañu ci jublu ci waajal bis bi waaye itam jublu ci lépp loo xam ne mooy luy jëm ci wàllu organisation ak luy doxal bés bi sëriñ bi mu ngi leen di xamal ne administration bu diwaanu njaareem département Mbàkke bi yépp maase nañu ci xam li nga xam ne mooy yilla ak dayo bis bi ba tax na ñu jël seen lépp yabal seeni ndaw ngir ñu taxaw ci bis bi ba mu jag taan ak sëriñ bi ziyaar ko duggaat otoom delluwaat ndakaaru loolu kon sëriñ bi nee na rëy na ci moom te nee na mu ko ci sant bu baax a baax di ko ci gërëm di sant koo xam ne kii bi ñuy présenté délégation religieuse bi mënoon nañ ko cee boole bu ñuy présenté délégation administrative bi mënoon nañ ko cee boole muy honorable député sëriñ Cheikh Abdou Mbacke Ndaw mii nga xam ne tey moo nekkoon meeru Mbacke bi ñu daan def màggal yi ca jamono ba muy nekk Mbacke moom mi moo fa nekkoon maire waaye na ngeen xam ne lépp loo xam ne itam mas nañu fa dem sàkk ko ci moom ci màggal gi moom it def na ko ba def ci lu kawe sunu njort ba tax na sëriñ bi nee na mi ngi koy sant bu baax ci màggal yi nga xam ne moom lañu weesu woon waaye di ko sant bu baax itam ci màggal gi nga xam ne moom lañu nekk ndax ba ñu defee délégation dem fa jébbal ko lettre sëriñ bi daf noo xamal ne bokkuma ci ñi nga xam ne

moom daf bi mu ko yëgee dafa daal di dagg ay yëtteem daal di dawal otoom ñëw fekk ci sëriñ bi fi nga xam ne fi la nekk kon sëriñ bi excellence mi ngi noonu toog ci wetu honorable fekke ci bis bi di bisub sëriñ May Amar xam na kollëre gi nga xam ne moom la séqoon ak sëriñ bi loola nag fas na ko yéene wéyal du dakk mukk ci kër alxaaji sëriñ May Amar kon excellence sëriñ bi nee na mu ngi lay gërëm bu baaxa baax di la sant docteur Ma Anta Mbow sëriñ bi nee manon nako baña tuddu ci gi dana ko mu anda ak magam Papa mbaw ak njabotam gep mu am lu mu représenter ci administration Sénégal motax tax mu koy tuddu ngir cant gi muy sant ñi nga xam ñoo réew mi nee na mu dugal ko ci cant googu ndax yàlla mën naa dogal loola li yokk ay dara jaam jóge ci biir cant googu nee na loolu moo tax mu koy sant ci kanamu mbooloo mi waaye xam na ne wàccuwaay bi taalibe yi am ci bis bi yëpp euh, moom la ci am ba tax na lii rek moo tax mu koy sant nee na koy sant bu baax a baax a baax ci jëf ju rëy ji nga xam ne jëf na ko waaye itam nag li nga xam ne noonu la defee ci ànd ak ñi nga xamante ne nii moo di njaboot gi te nekk ci administration Sénégal ñëw fekke si bis bi nee na mu ngi koy ñaanal daraja yooyu mu fa yore itam sunu borom yàlla na ko yokk njabootu maam Birane Gueye xam naa Cheikh Modou Moustapha Mbacke lu mu def noonu la li tax bi ñuy jàllale euh, présence su autorité religieuse yi ñoom li muñ leen ca woon Cheikh Modou Moustapha dafa sancoon Mbacke Murit yóbbu fa Cheikh Ibrahima Dior Amar waaye waxoon ne leen lépp lu ngeen di laaj ci seen wàllu diine na ngeen ko laaj kër Cheikh Ibrahima Dior Amar waaye lépp lu jëm ci wàllu administration na ngeen ko laaj kër maam Birane Gueye xam naa moo tax ñu dugal leen ci délégation officielle bi muy mbir yu baatina yoo xam ne moom moo ci xam seen délégation teew na ci njiital Serigne ndaam Gueye ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm kon sëriñ bi euh, ñi nga xam ne aussi ñooy élément sapeur pompier yi ñoom boobu ba nëgë ni ñi ngi fii di def seen liggéey seen liggéey nag mën nañ koo tënk rek ci sauver ou périr alhamdulilahi rabil alamin mu nekk leçon boobu daanu ci man jëriñoo insha allahu mu ne sëriñ may amaar jaar na fu nekk pour alquranu karim ndax way jur moo ko doon tàggat ci loolu ndax yaakaar naa ni nit ki bala nga ko mën a maanaam tàggat dëgg-dëgg dana jaar ci ay coonoom fu nekk jaar na fa Njaambur Jolof Saalum Waalo Kajoor amul fu mu ci la continuer dem ba mbir jàpp ko ba jàpp ko nag mu fekk Seexul Xadim Jurbel mu ñaanal ko jël ko jox ko benn téere ne ko wéyalal sa njàng mu dem bi mu génnee rek dafa naan fi mokkal alxuraan karim fu ñaan dëkk ma kër ma xar yi foofu la mokkal alxuraan karim bind fa kaamil bu nga xam ne maam yëm na doomu aadama yëpp ci ñaan bu moom Seexul Xadim moo ko ñaanaloon ci la bàyyi ko foofu kër ma xar yi ñëw jéemul ci way juróom woowu di Cheikh Ibrahima ak ci Cheikh Ndonga Joor jóge fa mu bind mu bëgg ci moom lool nag mu continuer di jàng luñ ci principe sur maanaam jurisprudence wàllu fiqh ci islam ci la defee la muy def nekk ak moom ba 1927 Seexul Xadiim bi mu fi bàyyi ko nag mu ñëw nag nekk ak waajuram Cheikh Ibrahima joor fii ci Mbàkke Bawal nekk giddam bu nga xamee ni lépp lu nga xam ne Cheikh Ibrahima Dior doon na ko liggéey rek ci loxoom la ko tegoon mu di ko liggéey ci wàllu mbokk gi wàllu taalibe gi wàllu liggéey bi lépp lu nga xamee ne Cheikh Ibrahima soxla woon na ko léegi mi ngi euh, Cheikh Serigne Amar mooy ki nga xam moo ko jiite woon ci yooya jamono. ci la continuer ba Cheikh Ibrahima Dior bàyyi ko fi 1945 léegi nag mu yenn responsabilité bi nag lépp lu way juróom boobu yenoon léegi mu yenu ci wàllu xam-xam ñëpp seede na ko ndax jàng na lu ñu tuddee ilmul asrar paj loolu dafa ñëpp mën nañ ko maanaam seere asar nak moy lepp lu yem ci walu roos lepp lu yem ci manam secret lepp lo xam day fajj febar bu nga xamé ne dafa të kenn mënu ko fajj docteur mënu ko fajj daf ko dan fajj mom serigne may amaar lepp lu nga xamé ne si da nga manam da nga amone aajo bo ñew mu fajjal aajo ji lepp lu nga xamé ne si problème bam dang ko am ba bu la joon wenn keuyit keuyit wo so demee sa aajo ñu fajjo fajoo sañ Amar mo mo wax ma nga yomal qiyam dana dana ko net ëlëk nee na sa baay sëriñ day su jëloon wenn kenn kese jox la soo demee la nga cay faju dana faju moo ko seedeel kon kooku yaakaar naa ne sëñ Bassirou Amar ku nekk xam na ko bu demee ba seeral kii mu seede seede sor yaakaar naa témoin la boobu ñëpp mën nañ ci ñëpp i nag seede nañ ndax feebar lu mu dang-dang feebar lu mu timit jafe-jafe boo mën am boo ñëwee boo jàkkaarloo moom rek lu mu la jox boo demee aju dana faju ñun ñëpp maanaam seede nañ ko ci loolu xam naa ci boobu sax laa bindoon benn xasida xasida boobu laa bëgg a tënk ci mbir yi xasida boobu ma def ci moom benn xasida tudde ko Mawaahibu Shifa Shifa boobu laa leen tënkal tuuti ci ay bayit rek yoo xam ne maanaam ki moom lay wax maanaam liggéeyam ci mbirum paj dama ko waxoon ne ko yaa tabiban yafuuqu kulla tabibin kam maridin shafaytahu min wabain ajasal muxtasina kullan wa amda raha qawmin qad saafahu bi shaqain saaka wahbun min ilaahi allati la rabba xayru munasirun bi shifaa'i fa isa maqat fa ista maxat xaddaka daru yawman suur sëriñ may yotiika xayra dawa i wa ista maxat xalla xalbaka hamun faxtari minu yaa lahoo fan jala i yaa tura law xusista ruyata waccin saala amman rabaahu kulla ana i kam saqaani kasta shifaa i wa xayri fa jasaw ilaahi xayra jasa i muxlisun muxtidun xadimu rasuli naala minu amanatu omana i si sëriñ may salli rabbi ala nabi muhammad bisalamin وآله شهداء أنت يا جد مصطفى بك فصنا منتل فاخ منتل أمراء maanaam baytu lu mu ko dégg ndax dama ne 30 bayt ak lu topp maanaam ci moom rek laa ko waxoon muy bi ma nekk université de Diourbel Khartoum dama ko ni eh yow docteur bi yaa tabiban ya fooku kul yaa kawe bépp docteur kam mari den ñaata ci ay garak chafay taxoo wéral nga ko min wa baa ci feebar bu kenn mun ta faj feebar boobu day aajasal muxtasina spécialité yëpp maanaam tere woon nañ mun ñu ko faj naam naam na muxtasina kullan wa amta muy spécialité yi nga xam ne dañoo faj mënuñoo faj boo ñëw sëriñ may mu faj la loolu ñëpp seere na ko mu ni loolu may la gu ko yàlla jox yàlla mi nga xam ne mooy wàcc ak wér da koo jox na ko maanaam lépp ku indi rek maanaam wéralal kooka foofu la jaar ba ku ñëw ci moom da nga wér manifestement xat addaka daxaru yomat jamono bu demee ba matt la maanaam ba jot la suuf sëriñ may seeti ko yortii ka xayra dawaa garab gi gën ci garab yi mu jox la ko wa istaama xat xalla xal ba ko xamul soo demee am jàqare mbaa nga tiit faxtari min jege ko yaa loxoo fin jëraa mu dañ léegi yaa trois ak a neexoon law xusista raayata wañ nga gis kanam ka nga xamee ni zaala am man raaw ku la ana ku ko gis rek sa coono deñ ak a neexoon nga seetu kooku ma ne kam ñaata saqaani la man nandal man en tant que Omar kam saqaani kaasu shifa yi kaasu wér waxee ak kudul man nag nandal na wér gi nandal na ko keneen kon nag fa jasaaw ilaaw xayra jasaa ko yàlla fay ma la muxtadin ku daan roy la xadima rasul seexul xadim daf ko daan roy de naa la mi am na ci moom amaanatu omana garanti bu wér moom la ko seexul xadim garanti kon nag sali rabbi yal na ko yàlla julli yàlla julli ci yonent bi alayhi salaam ci jokk ma ne ko anta yaa jàddo yow mi nga xamee ni yow ay maami Moustapha bi ka fos na am nanu ci yow man si lan daraja ba nga faaxa kawe na mantal omara maanaam place ci buur ci yow lan ko amee kon sëriñ may daal ci tënk ci ay jikkoom kaana saabiran muñ ko doon bu nga xamee ne laayas ko abada musul jàmbat mukk ci àdduna wa xaliman ku lewat la woon laayata sadio daawul xuloo mukk daawul xëccoo wa moto waat ne ku wàcce woon bopp la aussi laayata naafas ilmar ay place yooyu soxalu ko woon ak ak wa ku noo an ku doy na woon la aussi laayata tala ilal ma am waale mosul xool alal mbaa ay étage mbaa ay oto non non mosul ko xool mosul mukk maanaam di gaawtu di jëggante ak i place moo ne pourtant ku baroon yërmandi la pourtant moom day fuqara u yeeg masaakin yeeg araamil yeeg mu jirim yeeg yëpp ci moom def na maanaam mu daan leen euh, euh, sa maanaam mu làqoon leen daan def ci ñoom li nga xam ne tey moo doon seen mbégte ci loolu koon la continuer moom sëriñ May ba nga xamee ne tey yàlla may na ko place bu nga xam ne maanaam bëriwul maanaam ku mu ko jox ala kulli xaalin dama ne nag am na éducation bi mu daan yare moom sëriñ May Amar ci ñaari façon éducation mbirum liggéey ku nekk xam gis na naba nam ko def ak lam fa def di yar taalibe yeeg doom yi dem noor ñëw na mbaa boog loolu li ñëw na da ngay ruuji da ngay dagg garab yi di jëm ci ñax mi di def néegi ñax yi di sàmm def def loolu noonu yar kenn pour nga dund ñaq ndax dund bi ci gën mooy dund bi xam ne moo a bi nga dund sa ñaq loolu leen yare woon mais yemul foofu ci wàllu root dafa dafoon formé ay daayira ñuy jàng ay xasaayit di jàng alxuraan pour lan pour maanaam xale bañ a dem ci mbedd may warante ak xëccoo ko football ak yooyu non non moom daf doon téewoon ci kër gi pour ñu jafe xasaayit kon dafa yare ci wàllu liggéey wàllu roo kooku may la woon dafa ne bon topone ci maye serigne may lima li nga xam def nako dan ko wara a lima bëgg nak moy bon deg rek man def ni mais nan ko jema roy parce que dañu wax dara jéem lu mu reuy reuy il faut nga tirer ci ay leçon ndax loolu lay jëriñ ca dañu wax daanaa ko surma ni dañu histoire ak taarix histoire yu darisu insan da fay jangale lay jallon wa yaqulu lana dafnan funa huna waqafa salaf mag ñi fi lañ yemon wa min huna nasiru fi ma ban li leen ci wara dolli comme que nag commencé ko ci abu ayub ansari ci madina munawara ba nañu duggee léegi Masra ba nañu duggee léegi eh, Tunisie ñëw léegi Maroc ba nañu maanaam eh, eh, duggee Sénégal ba ni nga xam ne noonu la ñu duggee fi ba tey suñu jëmmi tey fa tabarakallaaw ay leçon yi dañ ñu ko bàyyi woon kon leçon a tirer pour ne tam mën cee jëriñ jëriñ suñu bokk fa tabarakallaaw kon ngi leen sant leen gërëm xaqiqatan sama xol seet na tey ndax dafa ne liggéey bi nga xamee ne sëriñ may woon na liggéey bu mu ngi gën a jëm ginnaaw ndax sëriñ maam guma jëpp xam na ko liggéey na ba jóge fi ah kon yal na ko yàlla jàppale ba liggéey boobu nga xam ne moom lañ ko bàyyi mu def ko ni nga xam noonu lañ ko bëggee mu fa tabarakallaahu su ko defee aussi ñi mu bàyyi ndax képp ku nga xam ne kullu nafsin saa yoon ko ku mos dund danga danga dee su ko defee ëllëg ñi fi nekk aussi yor message boobu pour jàllale ko ba yomal xiyam kon na seen leen gërëm sama xol seet na tey ndax sëriñ may daal li wax ci moom dafa ba dina seet mukk dafa naa nag sax ci moom lu nga xam dem ne maanaam 30 40 saf paas yu nga xam ci moom la ñu ko bind bind ko sëñ Bassirou Amar sëñ Aliou Amar sëñ Ibnou Amar ak keneen muy livre ba ñu bindoon suñu demee wa إلى دار دنيا أخرى باب الله جل أخد وهو ليس له من والد ولا ولد الله جل أخد وهو سمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفوا وسرمدا بالملك والحمد الفرد ولم يكن جل له كفوا وسرمدا بالملك والحمد الفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد رسول الغابد والله لم ياتي وليس ياتي xalxul ka misli sayyidul saddaati bu bopp yàlla na la mooy luy dëjle yàlla na la mooy luy sonn yàlla na la mooy te yàlla boo jóg ci ay ngëneel ak i may na ñëpp def nu màggal sëñ Mame Amar na ñëpp def nu màggal sëñ Mame Amar luy lëj la yàlla la mooy luy sën la yàlla la mooy te yàlla boo jóg ci ay nga neel ak i may sëñ Mame mii dafa jox xam-xam cëram digal nu nuy sàkku xam-xam ndax nu am ngërëm waxtu wa ak sama baay Omar mi doon jël kàddu léegi moom Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Ibrahima Dior Amar taalif bind na téere boo xamante ne si léppi mbokk gi nga ca téere bu leer am ay delluwaay yu wóor ak ay tegtal yu leer kon jot na sëkk ñun famille bi ñu takkatoo mànkatoo jël téere boobu muul ko tasaare ko ngir mbokk gi xam ko te lay solos téere bi mooy fii ba téeméeri at xale yi judduwaat ci ginnaaw bu ñëwee yër téere bi kenn ku ne danga nga xam na bokke ak ña nga bokkal ak fa nga bokkee ñoom ak noo bokkee ñoom ndax kat wax day naaw ci jaww ji waaye am mbind day des bokk na ci liy defar ak mbokk mooy di waxtaan mbok gi waxtu ne dañu wara tok diko di serigne beydi sëriñ bayti ndongo jor sering mamma jor serigne paate jor serigne ibrahima jor amar ñi ñoo bok wenn wajur muy serigne mor gumba binta kon dafa melni serigne mor gumba binta moy jëm ji ñom kenn ku nekk ab cër nga ca moom ñi nak buma len leen doon misaal ñoom ma lim dama len di jox darajey gaay yoy alquran di wax rek nan min almuminina rijalun sadaqu ma ahadullaha fa minhum man qadee nahbahu wa minhum man yantasiru wa ma baddalu tabdilan liyajziya allahu sadiqina bi sidqihim ñoom daal kóllëre gëñ séqoon ak seen borom matal nañ ko ñoom gaa yooyu ma doon lim léegi waaye nag am na lu leen dese ndax nit ki lu mu baax baax baax ak lu jëfam rëy rëy rëy bu amul ndono ginnaawam lu taxaw ci ginnaawam jëfam dana suulu ba tax na gaay yu baax yépp boo delloo ci alxuraan daana ñaan ay sët yu mën a taxaw seen ginnaaw sàmmal leen seen ndono loolu muy ndonal lislaam li alxuraan dafa wax ne sayidna ibrahim wax na ne rabbana hëblana min aswaajina wa durriyatina qurata ayun wajaxalna lil muttaqina imama am na feneen fokk suñu borom waxee ne ko ibrahim inni jaahiluka linnaasi imaman lu ko ci suñu sayidna ibrahim tegal xaala wa min duriyat yi ma ngay ñaan musar ba ci ay sëtam sama borom ne ko laa yanaalu ahdiya saalimin say sët nag na ca ay tooñkat moom du ma leen jox sama kóllëre buñ demee ci alquran yonente bi ñuy wax zakariya bi mu demee ba toll ci magal ba xam ne léegi faatu ñëw mu jaaxle lool ci ndonom li nga xam ne mooy ndonal lislaam li kan moo ko koy téel ba tax mu doon ñaan suñu borom doom fa hëb lii min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya kon ndona lo xamanteni ne si boo fi joge euleuk la nga nekkon muy diina ji danañ ko meuna continuer lolou gaay yu bax yeb dañ ko don ñaan ba ci Serigne Touba mi nuñ yaakar de ngeen mu naan duriyatan tayyibatan tujaddidu nahda nahja nabiyal mustafa tajtahidu ak wa hab lana duriyatan tudimu alhamala salihaya ya qadimu kon liñu war ñun ñi nga xamne ñun lañ ginaaw nanu génn ci lii ñu nekk di xiiroo ci lu ñàkk fayda loo xam ne amut benn solo te fexe manko bank bokk ndey ak joxante ay loxo ndona lii ñu ñu bàyyil muy lislaam ñu fexe ko dundal yéen sunuy waajur nag am ngeen ci responsaabul bu rëy ndax na leen wóor ne puso baa ngi ci loxo yi xale yi te bu ngeen yeexee mu réer na leen wóor ne xale yaa ngi ci tefesu géej gi te bu ngeen yeexee ñu lab li nu war mooy taawanu wa taqwa dimbalante ci lu baax ak ku te dogug mbokkat lu watta moytu la ndax fa hal asitumu in tawallaytumu an tufsidu fi lardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladina fa asammahum wa ahma absaruhum ñii dogug mbokk sa borom da leen kon dogug mbokk lu mata moytu la leneen li ci topp mooy sëriñ bi nee mi ngi wax xalaatam ci Sénégal gii nga xam ne moom la ñu bokk ndax set citoyen la comme ñépp te foo dem ci biir Sénégal am na njaboot xubbul watan min al iman la yenente bi sallallahu alayhi wa wax ba hadis bi wérul tamit maanaam mi wér na bokk na ci sunu jafe-jafe réew lépp dañ koo jéggaani langue wi nga xam ne moom la wax langue nationale dañu koo jéggaani te sarti réew mi ci langue woowu lañu ko tënk bokk na ca sarti réew ma ku mënul làng yu mënoo fee doon président ci réew mi te réew mi buñ ko xaajee buñ ko defoon téeméeri cër juróom-ñeent fukki juróom yépp dégguñu langue woowu te mosuñoo gis fenn yàlla di yónni ab yonente ci ay xeet ñuy muy waxee ak ñoom ci langue wañu namput yónente bu yàlla mas a yónni ci aw xeet rek lam lang wañu nampe ci lay waxee ak ñoom moomaa arsalna min rasulin ila bi lisaanin qawmihi li yubayyina lahum bokk na ci sunu jafe réew lu ëpp ci li ñuy dundee dañ koy jéggaani bokk na ci suñu jafe-jafe réew la gën a baax ci sunum réew ay nit yu xonq ñooy ñëw jël ko yóbbu ci seenum réew jëfandikoo ko sunu géej gi li ci gën a baax ay ay nit yu xonq ñoo koy napp yóbbu ko ci seenum réew jëfandikoo lu waral suñu njiiti yu réew bu ñu tawatee bitim réew la ñuy faju jee seenu njaboot bu ñu tawatee fa lañ leen di yóbbu ñu faj jee ba tax na loolu tax na mënuñoo xam ñoom seen doomi réew jafe ji fa yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci biir hôpital yi lu waral ku feebar ci ñun toog sa kër moo lay gënal dem hôpital ndax lan hôpital bo fa démé coono yang fay dundu bala ñu jël sa malade dinañ la laaj xaliss bu bari buñ ko entrer ba wutal ko sal suba beccëk ngon ñi ngi lay bindal ay ordonnance yu bu démé ba malade bi tane bala nga génn da nga fay xaliss bu seer bu faato ñu téye néw bi di la laaj xaalis lu tax sarti réew porté ci njitum réew mi ba wax lo wotox ci mom yoon woolu la te ku mu neex nga génn saaga sunu kilifa yi diine yi te dara du la ci fekk lu tax sunum réew bu ubbi woon ay buntam doomi réewam yëpp doomi réewam yëpp génn daw ba tax na tëj giñ ko tëj ñenn ñi ngi fipp di jaar ci gaal yi ba ñu ci bari ci xale yi seeni bàmmeel mi ngi ci géej gi lu tax sunum réew kër goo dem waaye retraité ña nga xam ne liggéeyatuñ ñoo yor kër ga kër goo dugg mag ña nga xam ne dañoo waroon a toll ci noppalu ba léegi ñoo yor kër ga xale yi amuñu liggéey lu tax ku bëgg xam-xam ci suñum réew wacce aw làngam lu tax ku bëgg a tekk bàyyi am réewam lu tax bu ñu bëggee génn suñum réew sonn lool te ku bëgg a dugg ci suñum réew mu yomb ko lool ñiy déposé di ñaan bu buñ dee téeméeri nit juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent yëpp dañ leen di rejeté lu tax fii ci sunum réew bàyyi ma gën fee seer doomu aadama 2000 2000 francs nga ràng ay nit ñu bari solal leen ay tiset ñu yendoo laa yu xool te boo yoroon 2000 francs dem ci daral gee bëggu béy doo ko mën a am kon loolu ab tënk la rek ci suñu jafe-jafe réew waaye nag lan mooy solution bi bokk na ci solution mooy tabax jikko yi ndax boo tabaxee am réew te tabaxoo jikko yi ña dëkk réew ma seen ñaaw jikko yàqaat la nga tabaxoon jikko yi nag buñ ko bëggee tabax faw ñu delluwaat ci alquran ndax naa sayidatuna Aïsa radiyallahu anha biñ ko laajee jikkoy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dane ay jikkoo mooy alquran te alquran ci la yonente bi jële jikko yu rafet yi nga xam ne moom la convaincre ñu bari ba ñu dugg ci biir l'islam yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala nag wàccoo naak ñun ndax am nañ suuf su doy am nañ ndox mu doy am nañ espace bu doy te am nañ ay xale Sénégal mooy réew mi nga xam ne xale yi ñoo ëpp mag ñi kon li war mooy nañu boole xalaatu mag ñi ak doole ndaw ñi suñu réew jëm ca kanam waaye réew moo xam ne mag ña ñooy liggéey ndaw ña toog moom moomu réew du dem ci kanam bokku na ci solution yi nañu dolel borom xam-xam yi menn réew munta dem ci luddul xam-xam kon nañu yëkkatiwaat borom xam-xam yi joxaat leen seen gëdd joxaat leen seen aq dolel leen bokku na ci solution yi nañu wormal nit yi yalla yi suñu rew nit ñi ŋàññi nit yi ray yalla yi ñaawna na lool te sa borom neena kep ku nono kenn ci sama wali yu rek déclarer déclarer na la guerre bokkuna na ci solution yi borom alal yi nañu nango invisible ci rew mi bo ubbee fi alimentation rek wut sa ben mbokk jox ko kéré nga employé loolu bokkuna na ci li nu mën a ci li nu nek bokkuna ci li nu ci mëna génné di déglé lu bax di téré lu bon sallallahu alaihi wa neena nee ngeen di digle lu bax di téré lu bon mbaa lu ko moy sa borom dana jël ñi ñeen teg ko seen kaw te ñi gën ci yéen bu ñu taxawee ñaan yàlla du leen wuyu bokk na ci solison yi ñii nga xam ne ñooy sunuy njiit réew nañu taxaw sunuy immigré ba réew ya ñu dem ñu man faa amee kayit ba dellu si seenum réew di leen yomb buñ dee liggéey di ñëw di investir ci seenum réew loolu mën naa delloo ndóol ginnaaw bokk na ci solution yi nan nangoo am kilifa kilifa ku ko ñàkk rek seytaane mooy doon sa kilifa te am na ñu taxaw temm ci jëli fi lool yi yoonu murid doole ji li muy bari bari dara waralu ko lu benn baat bi kese bu kilifa gi waxee ñu def bu teree ñu bàyyi loolu nag buñ ko ñàkkee yam ak ñépp kilifa yi tamit nanu nangoo yaatu dënn yërëm ñi ñu yilif ndax yii kat day yàq kilifteef loo xam wax ko luñ la wax nga wax ko loo mer xul ko loo am jagoo bokk na ci solution yi rajo yi ak télé yi nañu bàyyi ñi ñi dalal ab sëriñu njabarkat mooy dem jënd ab émission ñu dalal ko mu nekk fa di wax lu waxuwut ak di nax nit ñi rek te ñu ëpp ci nit ñi luñ gis ci télé dañ koy gëm kon borom télé yi nañu dalal borom xam-xam yi ngir ñu mën a yee nit ñi bokk na ci solution yi lu ne nga jox ko waayam waaye bu ko jox sa waay lu ne jox ko waayam waaye bu ko jox sa waay mooy poste bu nekk jox ko ko ko waaye bu ko jox kala neex bokk na ci solution yi faw buur yi maandu gis nga buur bi bu màndoo ñi mu yilif maandu buur bi bu maandoo douanier yi maandu buur bi màndoo policier yi maandu buur bi bu màndoo commerçant yi maandu ndax jamonoy Omar ibnu Abdul Aziz mandu gi nga xamne ne la omar ibnu abdul aziz mandu won motax ñamu ñu livon ñepp dañoo mandu waye mandu ga dalaw ba ci all ba ndax wax nañ ne til sax fadul gat ci jamono ibnu abdul aziz kon njitum rew mi bu mando rek ñi mu yilif fawu ñu maandu bokku na ci solution yu ñu wañi yaq gu bari ci xew yi ndax mëno liggéey ci fukki at benn bis ñëw nga yaq ko ca kon nak kër gu ne nañu takktoo fexe seen kër baax koñ bu ne nañu takktoo taxaw fexe seen koñ baax dëkk bu nekk nañu takktoo taxaw seenu dëkk baax buñ ko defee Sénégal gépp baax sëriñ bi nee na taalibe yi mi ngi leen di fàttali rek waxi seexul xadim sëriñ Tuubaa daa waxoon ne seen taalibe yi bu ñu leen joxee seen addiye ji bu leen ko bége te bu leen leen bégal ana nu ngeen di def ak ñoom dëdduloo leen leen adduna bon bii te xemmeem loo leen alaaxira ba leenu jëm nee na mi ngi leen di fàttali waxe sëñ Tuubaa ji daa waxoon ne jaamu ji leen yàlla jaamulu ma leen yàlla sama bopp laay jaamul yàlla jaamu ji leen yàlla jaamulu ma leen yàlla sama bopp laay jaamul yàlla jaamu ji leen yàlla jaamulu ma leen yàlla sama bopp laay jaamu yàlla ëllëg ñaari baat rek la ma sama borom di laaj ma tontu ko ñett ahmadu noo def ak jaam ñi mu ne wax naa ñu jëf ñu dégg jëf naa ñu gis bind naa bàyyi moo tax sëñ bay jaxate wax ne sëriñ bi wax na bind na jëf na nu gis te digle na lii moo ko warkat wàcc na musula mooy musula fo foo gis ku nee fi waaye ma rek muy fooga mooy xumaaga ma gis ku nee fi waaye ma rek weddil ndagam gis nga mu fo nee na bamba wurus bu sell la waayam dërëm bu sotti la lu amee brax rek yaru la abraxa ban day taxa fo ne xànjar lu dar dar ci wurus asal bu koy tëgg bi diis xam ne day nuru nuru wurus waaye du wurus sëriñ bi nee na ku leen jaay juddu bu rëy na ngeen ko jënde ngor ku leen jaay alal na ngeen ko jënde doylu ndax bu doyluwu dana ma sa sàcc ku leen jaay xam-xam na ngeen ko jënde ak ragal yàlla kon ñu tëje ko rek juróom ñaari juróom lii nga xam ne Seexul Xadiim moo ko waxoon daa waxoon ne ku bëgg juróom benn ci yéen fawu mu def juróom benn ku bëgg jëgë yalla ci yeen na farlu ci jang alquran ku bëgg mucc ci mbugalum mbammel na farlu ci salatu ala nabi ku bëgg am ba doto jeexle lo am nang ko dello sa borom ku bëgg a wéttaliku na nga jaar ci wu yoon ku jaar ci wu yoon faw dab nit mba nit dab la ku bëgg mucc na nga ko di togn serigne touba neena na togn du mucc te kenn mënu ko musal ku bëgg a na nga di fayuk togn koy fayu du noppalu te kenn mënu ko noppal ñaari rek mo fi am aw yoon aku ñal serigne touba ne li upp ci nit ñi ci ñal wi leen jaar dal ne ñoñu jaar ci ñal wi nak dama leena bëgg xamal fañu fami mujjee ñom aw ñal ku ci jaar da nga dox borom bu dekk wala nga wa dox ba son te doo jotub dëkk bakk dana la fel dig dana la jam do for dala ta ro for le ken do ko jël diko jox wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jef serigne modou amar ibnu sëriñ caat moom alaaji sëriñ May Amar kàddu gi sëriñ bi rafet na ni nga xam ne noon la ko sëriñ bi bëgge woon def nga ko ba def ci lu kawe njortu sëriñ bi sëriñ bi mu ngi lay sant bu baax ci jotal gi nga xam ne moom nga jotal kàddoom Euh, dañuy jox kàddu gi koo xam ne miin nañu kàddoom ci jotaayu kër sëriñ May Amar di honorable député Serigne Cheikh Abdou Mbacke Ndaw salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu bokki taalif ndaje yëpp sëñ maama maa ngi lay nuyu bu baax ci turu njabootu Sëñ Abdoulaye Mbacke borom dër bu ma la nuyoo rek nuyu naa kilifa fi daje yëpp sëñ Modou Habib mi ngi lay soxna ma yëpp mi ngi lay sant yàlla bu baax tey nag sëñ Modou jang nañ bu baax ci discours bu bari moo tax ma àbbul la ko ngir foto ndax li ngay fi wax lepp dafa ko ak li xew ci jamono te jotaay l'islam yu melni nit yu jóge fi xari ñëw ba exi ginnaw bi nga len dagge soñat len ñu gorgolu ci jaamu yalla topp ndigali sëriñ bi ñun ñëpp ñu bokk ñaanal sunu maam sunu sëriñ sëñ may amar mi nga xamante ni docteur l' islam loon maa ngi koy wax sax sëñ ak fudut Mbàkke ba ci Tuubaa gi ci lu nëbbu ak lu feeñ nit saa su jàq na yabal ndaw ci sëñ may amar mu dindi njàqare loolu sooraat Tuuba yëpp it ay jàngat la yoo xamante ni war nay gën di yaat di ndax fi may daane sëñ Maam Mor Mbàkke bi sëñ dañuy waxtaan ci lu bari wante keroog dem na ba ne ma Cheikh Abdou ñun fii ci université bi jàngalewuñu wuñu arabe jàngale wuñu français jàngalu anglais xam-xam lañuy jàngale kon xam-xam bi doonut langue français bi rek ba ku jàngul français rek yoroo xam-xam ñii jiite réew mi yor njàngum tubaab kenn ku ci toog ko dongab daara mën na ko jàngal kon nag lii dëggal lii mooy gone yi gën a jóg ci panel yi am ay kuréel waxtaan génne seeni xam-xam nekk ci biir ndax man sëñ Modou mi jànge naa ci moom lu bari tey kon nag sëñ Modou ñu ngi leen di ñaan ngeen gën a yaatal kuréel yi mu nekk ay groupe de réflexion yoo xamante ne ay solution yu bari na mën a juddoo pour Touba maa ngi nuyu bu baax amoon Ndiaye Angloma mi di conseil spécial le président la république ànd ak Sidi Bara Fall ñu fekk ci jotaay bi ñu ngi tamit yëkkat seen kàddu turu suñu rak Gallo Ba meeru Mbàkke bi fi ñëwoon moom it dégg naa taxawaayam bu rafet ngeen ñaanal ko bu baax a baax ñaanal population Mbacké ñaanal population département ñapp ñaanal Sénégal yëpp suñu borom wàcc ci jàmm ak sutura ak xéewal wasalaatu wasalaamu ala rasulillah jërëjëf honorable bu baax yow ñun ñoo la war sant wi jàngal doomi askan wi ci xam-xam ci xam-xam ak xel sëñ Omar amul Ben iñaan sëñ Omar amul Ben iñaan amul amul Ben Ben ceytaane itam amul Len Lo xam ne itam luy nuru ak ceytaane la man de xamuma ko nee na xamu ko de sama Andam ak moom nee na àndam ak moom mi ngi bëgg a romb juróom Ben fukki at danay gone yi tuut ñu ni yóbbu kajoor rek ndax nee na doon ay tuut tànk ñu leen di yóbbu kajoor demee ca pencum kajo ma bu ñu yeggee ca pencum njaarndema fa la nuy fanaanoo fa la nuy fanaan moom ak sëriñ Aliou Amar ak sëriñ Aliou Amar ak sëñ Mbay ak sëñ Mbay nee na ñoo doon moroomandoo ñi ci des ki ci des ki ci des kaddu gi fi sëñ Modou jël kaddu gi fi sëriñ Modou Amar jël maa xamoon ne nee na dafa xamoon ne ni mu ni ma ko bëggee. ni mu ko bëggee moom mi. noonu la koy tërale te def na te nee na def na ko. muy lu dëggu. muy lu dëggu. lu a jàngat. lu ñëpp war a jàngat. te ci aw. te fas ci yéene aw. te fas ko yéene itam jëfandikoo. Ah, jëf ju baax ji ñu doon def. jëf ju baax jii ngeen doon def. ngir jëmmi sëriñ May. ngir jëmmi Amar. yàlla na leen yàlla fay lu kawe. leen yàlla fay lu seen jort. di sant waa koñ bi yëpp. di sant waa koñ bi yëpp. ndax seen kër yi. ndax seen kër yi. dañ koo ubbi. dañ wàcc seen lal yi. ubbi seen kër yi. ubbi seen kër yi. dalal gan ñi. dalal koñ bi nee na koñ bi day mënu leen a fay. maa ngi leen di sant. leen di sant bu baax. sant koo xam ne benn cant féetewu ko kaw. taalibe yi nga xam ne. taalibe yi nga xam ne. dañoo bàyyi seen lépp. dañoo bàyyi seen lépp. sukk jébbulu. sukk seen bopp. jox seen bopp. di deglu ndigal di déglu ndigal di moytandiku tere di moytandiku ay tere ñi jóge fu sori ñi joggé fu sori ñi joggé kajoor ñi ñi joggé kaver ñi jóge kaver ñi bawal ñi joggé bawal ñi joggé ñi joggé ba saajo ñi joggé ba saajo ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñi ak wa touba and ak wa touba am fi ay fan am fi ay fan batay batay ji ngir yalla ak jëmmi bis bi ngir yalla ak jëmmi bis bi sama xol sedd na ci ñoom neena xolam sedd na ci ñoom kon man mënuma luddul kon dal mom neena na mënul ludul ñaanal leen ñaanal leen ci daraje serigne touba ci daraje serigne touba daraje daraje daraje yonnati bi alayhi salatu wa daraje yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yalla fajj seeni aajo yalla fajj seeni aajo bir bir ak biti ak biti maa ngi sant ñep neena mi ngi sant ñep di gërëm ñep di gërëm ñep di gërëm sama mbokk yi di gërëm mbokkam yi xam ne jóge nga xam ne jóge nañ fu ne. nee na bëgg rek. nee na lépp lu ngeen bëgg. bëgg bëgg na loola. lu ngeen wan ginnaaw. lu wan ginnaaw. wan na loolu ginnaaw. kër gi nag la. kër gii genn kër la. amul xajale. amul xajale. amul amul ñëpp benn lañ. benn lañ. jiitu jiitu rek. jiitu jiitu rek. ku ci topp topp ci. loolu la ñu sëriñ may amar digaloon. nee na sant na ñëpp di sant gone yi. bone yim jur tambule ko ci seigne mi tok ba ci ki muju neena mu ngi len di ñaanal ñom ñepp jarbaat yépp ak set yi neena mu ngi ñaanal ñepp jigen ñepp ma ngi len di ñaanal jigéen ñëpp mu ngi leen di ñaanal ndax seen taxaway rafetna kon nak ma ngi sant talibé di leen neena mu ngi sant talibé di leen denk ne baat bi nga xamne moy deug ta mo am baat bi nga xamne moy deug ta mo am jaamu yàlla. nanu sax ci jaamu yàlla. ak ragal yàlla. jaamu yàlla na mu ware. jaamu yàlla na mu ware. te boole ko ak muñ. boole ko ak su ko defee. li ñu bëgg. danañu ko am. mi ngi sant ñëpp. di ñaanal ñëpp. kon ñu jox sëriñ Birahim mu ñaan. waaw bismillah na ñëpp tàllal te wax mi daa fa jaajo. nee na wareñ. ku deeti faj sun aajo Cheikh may amar mu baax mi daa faj aajo nee na wërëñ ku deeti faj sun aajo Lamza TV mbokk yi mooy seen plateforme bi ngeen doon wër bis ni ki tey lépp lu ngeen itteewoot yi ñëw leen ak si bu ngeen fi ñëwee dootu leen ko rëccu Anza TV ci information générale tegu si maanute boole ko professionnalisme bu wér peng ay information société wàllub religion jox nañ ko àqam ba mat sëkk waaye tamit politique économie dañuy amal ay direct lépp luy événement si mim réew rawat si région de Diourbel département de Mbacké ak Touba Anza TV gaaw leen gaaw ngeen bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre Abonnez-vous en temps réel tous les événements Anza TV bataille sur notre page Facebook Anza TV sur Instagram nous sommes présents dans toutes les plateformes Anza TV une chaîne bi ngeen doon xaar vous si renseignements vous pouvez voter 617 426 30 71